waaw gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi dañuy dellu yeesal sunu pas jëm si sëriñ bi bul fecc ko ba mukk di ñaan sëñ Muntaxa Mbakke yàlla mi ngi xam mu moo am kattan mën lépp mu yàggal ko wéral ko ndax bu ko wéralee kat suñu ndam la ndax sëñ bi laxasaayu na jëm ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi kon war na fexe am war nañoo fexe ànd ak moom ca loolu di ñaanal tam sëñ Cheikh Jëmb Fall ndax njabootu Cheikh Ibra xam nga 3 le 3 bu ne dañuy ñëw ñoo ko moom sëñ Cheikh Jëmb ñu koy ñaanal di ñaanal njabootu maam Cheikh Rahim yëpp ci taxawaayu CRD bi mooy gouverneur bien vrai que dafa dem Makka mais am na taxawaay bu leer bàyyi na fi bàyyi na fi xabaar bàyyi na fi instruction bi muy dem Makka ba lépp jërul nañ ko ba mu mat kon dafay jaadu si ñun bu ñu leen ni tey dëkkee seen yi ñu wax leen ni kat Alioune Aïdara Niang ak équipe taxaw nañ taxawaay bu mat jëm ca loolu. suñu génnee le maire Mamadou Mansour Faye taxaw taxaw na taxawaay bu rafet ndax tànt bii nga gis nii. c'est 5 millions de francs jour soo ko boolee si ñetti fan day nekk 15 millions mais la collectivité la le conseil municipal la interpellé woon ni leen yéen conseil bi ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi war ngeen am taxawaay bu mat jëm ci ñaar rakk Serigne Touba yi ndax kat am nañ manifestation yu fi am ñooñu am nañu lim leen jox te ñun lim boobu amuñu ko ma yaakaar ni conseil municipal war na mën a fexe. ba jël par exemple man avancer naa peut-être dix millions taxawu ku taxawu kuréel ñaari raaka parce que manifestation bi ci dëkkam lay am te ñoom ñu ngi organiser boo xam ne logo ba ñoo ko moom c'est le marché du 5 septembre loolu la ñuy wax ñoom moom suñu logo droit du amul droit d'auteur droit d'auteur am na ci war nañoo taxaw xoolaat ñu waxuma maire de conseil bi laa wax. xam nga parrainage Sëñ Tuubaa dafa nekk ak ay seex mu seexal leen liggéey loo leen joxoñ leen ay dëkk ñooñu suñu rek dañuy diig. kenn du leen xamati xëy nañu seen taalibe ñu leen di xam ku demee nag sëñ Daaru Assane Ndiaye par exemple wala ku demee ne sëñ Bassirou Sarr Ndiagne et tant d'autres maam Adama Gueye dañ leen war a feeñal ñooñu jëf nañ ci yoonu murit mais bu ñu noppee nii te wul leen loolu mooy indi tudde bi mais tudde bi c'est c'est pas dans le souci de demande quelque chose c'est c'est dans le but de magnifier ces actes posés par ces grands dignitaires mourides lii mooy porte bi léegi nag dëkk bii di Ndar bi nga xam ne am na 350 ans de colonisation Serigne Touba am na fi tàngam tànkam mooy son produit made in Serigne Touba mooy maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ bi moo ko yewal fii mu nekk ak bi te tubaab bi mënuñ ko dara dara lañ ko mënuloon parce que la mu nekkoon gëm ka ma nga ca toog ba tey kon dëkk bi damay wax mooy màggalu sëriñ Touba bi bis bi nga xam ne tubaab bi dañu nër nërmel diine jaadoon na ci murid yëpp kenn ku ci nekk di jóg dem ndar. dem ndar pour lan demoo ndar pour ma sàmba wala ma demba da nga dem ndar yëkkati raaya Serigne Touba ba ñenn ñee yëkkati nga jàpp ca ci yëkkati ba Serigne Touba acte historique la li mu fi def fii acte acte héroïque procès bu injuste defal nañ ko ko fii ci dëkk bi loo xam ne teguwul ci yoon donc jaadu na murid yëpp maase ñëw ci bis Serigne Touba bi ci ndar xanaa ne léegi le fronton du palais le fronton dañ ko war a tuddee le palais du 5 septembre 1895 ndax jëfu Serigne Touba bi fi amoon jëf jooju du fay du fay ndax ñun suñu demee tam dina am yeneen génération future bi boobu ñu te daañ daañu jëfal jëfu Serigne Touba bi daañu ko màggal loolu daal laa mën ci leeral. le fronton du palais doit porter le la mention 5 septembre 1895 voilà.